ñu ngi leen nuyu di leen jaajëfal euh, si teewlu bi seen émission face to face amaat euh, mbégte euh, dellusiwaat tey nag ñu am un grand plaisir dalal koo xam ne papa si ñun te papa la tamit si ñu bari ci wàllu expérience wàllu également militantisme ci lu aju ci réew mi ak. Euh, na mu koy doxalee tàmm ngeen euh, di lire ay euh, contribution di ko gis aussi ci rajo yi ak tele yi muy intervenir si li nga xam ne moo jëm ci doxalinu réew mi ak ña ko yor tey kon ñu am mbégte pour la première fois dans cette émission dalal sunu tonton ngeen baal ma nag je sais que c'est pas très professionnel di wax ay tonton mais dama dama xaw a xam ngeen tàmm ngeen tamit si man ne su ma invité ku ma féetee ci wàll bi euh, bu dee ñenn grand laay wax bu dee ña si des tamit euh, ru suma wax tonton wala papa donc tey euh, ngeen baal ma rek ma bañ a sàllalu di ko wax sama suñ tonton la donc ah tonton Mody Niang di ancien inspecteur de l'enseignement nekk léegi à la retraite comme ni ma ko waxee rek gis ngeen ko semaine bi ak euh, ba ñu weesu euh, yëpp mi ngi doon euh, intervenir ci livre bi nga xam ne sama mag Pape Alé moom la génne mu aju ci nañu yore woon COUD foofu tamit moom intervenir na si ndaxte xam ngeen na mu toogee woon ci OFNAC mu mel ne yooyu ak euh, yeneen la ñu wax fas yéene waxtaan ak moom euh, rawatina nag euh, rapport bi nga xam ne Cour des comptes moom itamit génneel na ko ñu bugg rek décortiquer ko ko ak moom mu jàppale ñu ci ñu gën a mën a jàngat daal mbir yooyu ak yeneen nu ñu tëddee tonton Mody ginnaaw bañ la nuyoo jaajëfal si ni nga répondre positivement sunu invitation. ñu bàyyi la nga nuyoo ak mbokk yi lay seetaan. waaw maa ngi lay delloo sa nuyoo bu baax a baax. Mm. Eh, di la sant aussi ci woo gi nga fi woo pour ma waxtaan ak xeet bi. di nuyu say collaborateurs yëpp. di nuyu di nuyu Sénégalais yi ñuy déglu. Mhm. alors euh, tonton ñu dugg kon directement ci xolu émission bi ni ma ko waxee sànq rek euh, euh, Cour des comptes <coughs> gis naa déglu naa la sax wax wax nga ci mm, lu bari waaye dama bëgg rek bii ñu gën koo faram-fàccee Cour des kon génnal na seen rapport public yi nga xam ne dafa aju ci gestion 2015 ba 2017 loolu nag. ñu bëri ñaawal nañu retard bi ci publication bi euh, ki nga xam ne moo jiite boobule cours euh, dañuy li waral yéex a publier rapport yi mooy euh, personnel bi moo doyul woon explication boobu ayoful ak yow wala nangu nga ko. waaw kooku de sa benn confrère sa benn moroom laaj na ma lu mel noonu. Mm-hmm. ma ne ko lu jafee wax lay doon parce que mënuma dugg ci boppam. Mm-hmm. waaye nag am na ci lu lu tey sama xel man naa wax dëgg. Mhm. parce que moo xam ña fa ne. bien bu fekkente ne euh, ña fa nekk ñoo bariwul moo tax. Mhm. garaawul bu fekkente ne jumtukaay yi ñoo matul c'est pas grave waaye bu dee leneen nag. mënees mhm. na mënees na ko mette te li tax sama xel di ci tey. tardé googu mu tardé. du moom rek fépp la. Euh, kuréel yi nga xam ne ñi ngi ci seete doomu aadama yi ñu takkal ndombol tànk mm-hmm. dénk leen alal réew yi ñu war ko sàmm euh, ñooñee mm-hmm. def nañu nangami at ñu ca bari mm-hmm. génnewuñu rapport yi ñu war a génne waaw boo ko seetee foofu sa xel day tey man naam nag dugguma ci boppam euh, xam naa personne du doyut buñ ko dolli woon dana gën waaye dafa naa ne Sénégal fii nu toll ci kuréel yooyu di saytu mbir yi romb na mbiru. personnel personnel dëgg la est-ce que euh, ci wàllu COUD euh, bi nga xam ne euh, defe naa li fi li fi jaar ci ay ñaawteef bëri na mais bu COUD bi moom dafa cristalliser quand même opinion bi est-ce que Cour des am na ces rapports yi foo xam ne méngoo na fa ak yéen gis-gis yéen jamono yi nga nekk off nag te ngeen ngeen ngeen saytu woon wàllu COUD bi. Cour maanaam cour autonome la. Mm-hmm. loolu lañ ko tuddee. Mm-hmm. kii ñu ngi ca biir président de la république. moom ñu ngi dépendre exclusivement ci président de la république. Mm-hmm. ñee xam nañ autonomie. war nañoo mën a defar seen programme xëy ne dañuy seeti diw waaye programme bay dañ ko jox président. à titre d'information wala loolu. te inspection générale d'État moom balaa jóg dañ ko jox këyit rek. ne ko demal seeti. am na fa différence. waaye ñoom ñëpp liggéey bi benn la. dañuy saytu. réew mi ñiñ ko teg ci seen loxo nuñ koy yore. loolu mooy seen liggéey. maintenant est-ce am nañ fu ñuy daje am nañ fu ñuy daje fu wér a wér. parce que fi ñu daje mooy njaaxum mi yow Cour des comptes di gis. programme bay dañ ko moom la indi président gis li Cour des comptes nit génne nit ñi daf leen xaw kii man. san donc dafay xaw a man san di rien. da nga di rien. parce que juróom-ñaari rapport wala juróom-ñetti rapport alors que lu mat juróom fukk wala téeméeri rapport ñu ngi nelaw. Mm. loolu moo tax man man xawuma jaaxal. Mhm. li ma fi ñu mën a dajeral mooy leen la ñuy fekki. Mhm. moom mhm. daanaka fépp benn la. réew mi moom niñ ko yore jéggi na dayoo. gis nga ñi ñu seet. ak liñ ci gis wane ko. njombe yi ci ciy lu néew la par. lu ba da bu ñu baree baree baree bu ñu demoon ci ñoom. fekk fa lu ñu toll wala lu ko raw fuuf. réew mi léegi nu waay neex yore. li ko waral mooy. looy def te xam ne dara du la ca fekk. loolu la neex def. loolu mooy problème Sénégal. waaw mais mais euh, euh, tonton Mody euh, li nga wax nii dafa dafa am solo ndaxte wax nga léegi ne rapport yi xoolal ñi rapport yu bari. Mm-hmm. présidence boobu day wax ne carrément même bu ko wax sax jëfee na ko. Mm-hmm. da ci teg loxoom bu fekkante ne ñu ko jege mais bu dee ñu concerné opposition bi dafa mel ni ay moyen de pression la moyen de chantage la boo xam ne. Euh, finalement mën nañu jàpp ne corps de contrôle yi ak seen rapport yi finalité bi rek mooy euh, euh, mën a napp benn jën bu dee <laughs> jën opposition bi bu ñu ko mënee wax loolu. da xam nga danga nga xaw a wax ne président sax nee nañ wax na ko wala nangam na ko. Mhm. moo ko wax. waaw moo ko wax moo ni man sama conc bu ma fabuloon sama conc di teg ko ci rapport yu bëree bëri mhm. ñu bari danañ dem kaso. Mhm. xam nga loolu du waxee président déedéet muy indi coow. Mhm. mu daw dellu gannaaw. ne déedéet waxuma loolu dama ne rapportu si njéel yi rek laa fa teg sama conc même même loolu. Mhm. dafa garaaw. ëpp naa wax. waaw Emmanuel Macron ñeme naa wax loolu. déedéet xalaatu ko bu ko waxoon tamit. on ne peut pas lire dans un pays sérieux. non voilà voilà le problème. Mhm. parce que nee na buggul yóbbu. mag yeeg rakk ji ka kaso. waaw mag yeeg rakk ji ka kaso. bu ñu duubalee nag. yóbbu kaso. loolu ay ay waxi waxi kasaw kasaw la mhm. te gannaaw yooyu mhm. lu ca baree bari ma nga ci moom du jeex du xaaj mhm. tarde yi ngay wax inspection générale d'État parce que loolu il faut nit ñi dégg ko at mu jot yoon la ba fa na fi ngoom koy ta dem nekkee la def boobu réforme parce que rapport yi dañuy rëy ma ne su la te duñ leen génne ah, duñ leen rendre public waaye ñu seet ne xeet wi dañoo am sañ-sañ. nit ñi doxalee réew mi ñu xam ko. dañ leen war a informer dañ leen war a xamal. ñu ne léegi dañuy euh, rapport nañ cey tibb tuuti tibb tuuti loo xam ne lii danañ mën a xamal xamal waa réew mi. li xew béréb sangam nañ koy doxalee bërëb sangam nañ ko ñu ngi ko tuddee rapport public sur l' état de la gouvernance et de la reddition des comptes. at mu jot dañ ko war a génne jox ko président euh, fesal ko. Sénégal rendre ko bi Sénégalais yëpp jot. rapport boobu deux mille euh, euh, xam xam deux mille deux mille quatorze la nga ci génn. waaw deux mille quinze. deux mille seize deux mille dix sept deux mille dix huit. kenn ko mm-hmm. tere yoon dafa ne dafa war a génn. dafa war donc ñoom ñi ngi fab seen tànk euh, président la lay wax mi ngi fab tànkam teg ko ci yoon. pourquoi quel besoin le président Macky Sall am di créer autant de corps de contrôle dem bëgg dem dégg nga xam ne dana boo xam ne jël rapport yi ñoo xam ne bu ñu liggéeyee. jébbal ko euh, amul benn sens ndax da ci dëkk tànkam wala voilà mooy mooy la kon kon bi lan la kon ban njëriñ la ñu am. président de la bi dafa noo xaw a dese wekk. Mhm. dafa xaw a dese wekk Sénégal. ndax lan. ba mu nekkee candidat. Mhm. la mu diggee woon lépp xanaa dégg ko. waaw surtout la mu diggee woon ci euh, li ñu tuddee organe de contrôle. Mhm. kuréel yii di saytu ni ñu yore réew mi. nee bu ma ñëwee. dana leen dooleel bu baax a baax a baax a baax a baax. nii Ablaye Wade yore réew mi. bu ma ñëwee danaa ko soppi danaa ko teg ci yoon. waaw euh, ger lu ma man danaa ko fi def ba mu jóge fi. ñu dénk laa lal aussi maanaam déet su ne nga jël ko akimoo ko. danaa def lu ne moom danaa nangam danaa nangam danaa nangam ba ñëpp gëm ko wóolu ko. Mm-hmm. fab seen kàddu jox ko. Mm-hmm. réew mi ak 65 pour cent des voix. waaw mu toog installé wu ñu fab budget jox ko. Mm-hmm. dama ne. la mu waxoon ca. Euh, lam ñu naxee woon ba ñu jox ko kii réew mi. moom dégg nga maam danaa leen dooleel ba nga xam ne dara nangam dootu fi am nangam dootu fi am nangam dootu fi am. léegi daf leen a normal. ndax arrangé wu ñu ko. Khalifa Sall mii. caisse d'avance su fanweeri million. Mm-hmm. lañ ko doon jox ci euh, weer wu ne. Mm-hmm. kooku ña ko jiitu ñëpp noonu lañ daan def. Mm-hmm. néew ma sax war naa def ne ñoom. waaye fanweeri million lañ ko doon def par weer. Cheikhaan. téeméeri junni astafurla waaw téeméeri junni ak juróom fukk cent cinquante millions. par mois. ñett ah. fukki fan yu ne. fukki fan cent cinquante millions. Cheikh Omar mii fukki fan yu ne. boo woolee war muy ñeenti téeméeri millions ak juróom fukk xam nga pour la na ah? ah. jëndi légume. jëndi légume jëndi légume. jënd na fi ba jënd fi. kilo ceeb kilo euh, ñebe juróom-ñeenti téeméer. dama la bëgg wax rek voilà nit ñi. te kay léegi nag ñu bëgg te dafa loo xam ne lii mën naa bëggoon nga may ma xam nga réew mu ne. démocratie. parce que démb nee na le Sénégal est une grande démocratie. man weddi naa loolu. ndax lan. Sénégal bu nekkee démocratie mën nañ ko tuddee démocratie tropicale. Mm. démocratie bu ñàkk solo. parce que ñu démocratie euh, benn bànqaasam ëpp na bànqaasam sax. waaye dëgg wolof waaye dàtt ba. trop dàtt ba. équilibre des pouvoirs la war a doon. Euh, li tax maa la ko le 31 octobre. Euh, deux décembre. 31 décembre. nga xam ne mooy fan bi mujj ci. at mi mi dafay jàkkaarloo xëy di waxtaan ak ñoom. ba mu waxtaanee ñoom ba pare mu woo sa mbokk yi journaliste yi ñu koy laaj muy tontu. bañ ko laajee ci euh, foofu. loolu quand même Aïssatou lu Sénégalais yi war a xam moom tuuti rek. waaw mu ne waaw moom loolu dégg nga moom ci nee na ci kii rek la ko dégg réseaux sociaux yi. maanaam ci internet ak journaux yi loolu foofu la ko ah, déggee. waaw te nee na mm. affaire 89 millions la parce que man dama faa demoon di inaugurer ay. kii waaw ñu dépassé te loola mm. yoonu. of nag nekku ca mais loola c' est particulièrement lu garaaw la ci ci président de la d' abord quatre-vingt-neuf millions yam ne yoonu of nag nekku ci deniers publics la of nag luy doon deniers publics yoonam a nga ca ensuite bu ca yoonam nekkul it mais opportunité ba opportunité de la dépense ak l'utilité lii est ce que war nañ ko faa def wala waruñu ko mais xanaa boo boo dépensé quatre-vingt-neuf millions. war ngaa wane. justifié mënuñu ko xaw mënuñu ne nii lañ ko jëndee mënuñu ne te nee nañ jënd nañ téeméeri costume téeméeri karawaat. téeméeri daal. pour ay xale yi nga xam ne ñooy tertoo kii. jigéen ñi aussi ñu jëndal leen loolu. joxe ay subvention nag ba muy quatre-vingt-neuf millions. nee moom loola of nag waru ko woon conseil d' administration rek moo ko waroon toppatoo. président nañ ma jéggal foofu waxul dëgg moo ko tey. moo ko tey